mooy bi ci njëkk mooy wahab lii la ilma yow bala nga maa xam jàngal ba pare kon ñi wax ne Sëñ Tuubaa des ko xam ci téere njumte la Sëñ Tuubaa des koy xam ci téere waaye dund Sëñ Tuubaa moom ca mag ña képp des koy royee ndax ñoom ñoo jamonte ak moom waaye wala amal def ma may koo xam ne dama danga ci gis koo xam ne day jàng day am xam-xam day jàng maanaam programme majalis yëpp ba dañ ci réer sëñ bi day tarbiyewu xel kom ba sëñ saali ci boppam moo koy yeewi waaye xoolal bu jógee foofu la muy def mooy fas yéene dem Dakar ma ngay xool nu mu def ba moom ba liggéey ba xidma fàgg ju lu leew moo xam day segg café moo xam day jaay mbuus wala lu mu mën di jaay waaye moom lu mën di xew mooy jaar na fa mu war a jaar moom ne léegi moom istixmaar boobu daa war a def jeexit ci moom Sëñ Saaliu moomu ñu gis ne jëmm la ju am solo du am pédagogie ci tarbiya boo xoolee mbuur ndoka njurul ba ci xelkom da ngay gis ne fu ci nekk bii aay bii aat yi day wuute waaye gis nga xool li muy def mooy day fexe ba ki nga xam ne moom Tuubaa la dëkk moom miinut miinut lan ak noos moom miinut lu métti ba pare mu fexe koo jël yóbbu ko mbuur liggéey ba fa nekk foofu mu mën a méngoo ak moom ki nekk nguur moom tàmm na ak nooy bàyyi ndi ko ak noos léegi mu fexe ko moom nu mu jàllisee xel kom yaa ngi gis nga xam ne moom léegi nam meloon ci taayel bu demee xel kom moom day dañ vitesse boobu maanaam xeetu tarbiya boo xam ne ci sëñ bi la ko jëlee kon xanaa mën nañoo kii foofu bu ñu ñëwaatee daal di kii ñoo ngi tuub baax nag ci ci kàddu yi ñoo ngi tuub baax.
moom mooy modèle bi mooy modèle bi xam ni moom doo ko maanaam doo ko ci nattee daal da cee mat sëkk. taalibe yi war a doon modèle à appliquer. ñoom ñoo war a ñëw nag ngir roy ci sëriñ bi. ngir ñoom ñu mat kem kàttan li la suñu borom wërsëgal nga mat ko. doo xoolee ci chapitre boobu nga nekkoon sëriñ Moustapha da cee indi lu am solo. ku mel ne Cheikh Moustapha maanaam indi na ci benn benn portale bu xam ni ci wàllu tasawuf maanaam bu am solo bu xam ni bariwu ñu duñ koy waxtaanee doo xoolee tamit damay wax sànq sëñ Moodu ma ne ko man daanaka weer wu ne am chapitre bu ma dàqal ci téere bi waaye jamono ji moom chapitre bi muy wax ci maam Cheikh Ibrahima Fall ak philosophie carré njaxas bi moom daf ma dugg lool xam ni sëñ bi da ciy indi ku mel ni Deleuze xam ni benn philosophe français la bu am solo ci benn théorème bu tudd rhizome maanaam doo ko liiree rek da nga xam ni sëñ Moustapha sànq dama wax supra individuel waaye tamit philosophe moderne yi yóbbuluñ ko dara xam ni waaye ni mu ko ni mu ko ni mu ko ni mu ko mën na xeeb ba xam ni da nga ciy gis benn originalité xam ni da ngay gis ni lii sëriñ bi maanaam nekkul da koo dégg ci kenn. waaye da ko da doon lu lu bees tàq lu xam ni ku ko bëggati dégg rek faw nga delluwaat ci Cheikh Moustapha tamit ci biir chapitre boobu lu mel ni sëriñ Saliou ak ni mu ko indee ci moyen bu naafex ak insaanul kaamil. xaw ko tollale ak Superman bi nga xam ni Nietzsche wax na ko maanaam foofu tamit dañ fa gis maanaam lu am lu am solo sànq da nga wax ni ku mel ni Cheikh Moustapha daan na maanaam ci xidma yamul woon dong ci nit ñi waaye ba ci ci bàyyi ci bàyyi ma yi am na sànq ku ko wax ni Cheikh Moustapha daan na ko daan na ko daan def na ko këram lu mel ni muusi mu def kii maanaam loolu doo liiree téere bu naan xëy im na yàqzaan bu im na tufayl da nga gis ni indi na fa loolu waaye doo xoolee téere bi lépp ci xilaafa rek lay wax ni nit mën nañ koo sànni ci àll bu xam ni benn civilisation amu fa waaye mën naa dem ba découvrir fitraam ba man ba découvrir ni moom ndekete moom taxawaayam ci kaw suuf xilaafa la te mooy duñ duñ ko làng duñ ko làkkee ci làkku murit mën nañu wax taxawaayam ci ci àdduna mooy xidma kon loolu am na solo lool xam naa waaw sëñ Babacar laa bëgg a delluwaat kàddu gi mu am ay taxaw seetlu du ko defee deuxième partie bi xam naa 5 minutes 5 minutes 5 minutes lay doon ku ne yeggali li nga xam ni moom moo la dese woon ci li nga bëggoon a joxe incha allah.
mbokk yi dañ fi wax am na solo lool xëy na li ma doon tënk rek mooy xam naa dañ doon bëgg sax 5 minutes waaye xam naa bu ñu ko mënee def sax 3 minutes kenn ku nekk rek jéem a tënk li nga def ci kàddu incha allah ndax ñi nga xam ne dañoo war a defi commentaire ci buñ paree ñu jël liñ doon waxtaan ñu lëkkale ko ak projet faydu akabiri saalihin ndax al umdatu fi nazariyat al xidma mooy ballaluwaayu mooy cislaayu faydu akabiri saalihin kon ñooñu it ku ne am na juróomi minutes yoo xamante ne war nga cee tënk maanaam comparé waxtaan wi ak mashron faydu balaa sëñ bi di di tëj jotaay bi kon ñu jégg lu baax rek xam naa ko kàddu gi egsiwaat ci yow nga tënk ko incha allah bu ko defee mu ñëw ci li Serigne Moustapha tuddee sagesse linguistique mooy teqale diggante liggéey ak jëf ak li nga xam ni tamit mooy ci wàllu hiéroglyphique maanaam origine bi nga xam ni xidma am na ko ci kon xam naa foofu la ñuy la ñuy kiwee sëñ Maguette mu ñëw fa muy firi jëf ñaari baat yi nag linguistique parce que ni ko suñ seex doon leeral léegi suñ ne al amal mooy li nga xam ne nit ki da koy def te léeg-léeg du ko sañ a bañ maanaam léeg-léeg du ko sañ a bañ par force mu def ko te bu ko defee ba pare itam mën naa am njariñam cee xaar njariñ màddi lay doon yoo xam ne lu koy kiyal la bu dee xidma nag mooy jëf jëf jooju moom la taarife ci ci taarif bi ñu indi woon léegi définition bi ñu indi woon léegi ci xidma ngay ngay dalay wanaat gën a wanaat l'originalité langue olof nga xam ne olof tey buy wax buy wax mukallaf day wax togg jëf lay wax waaye du wax togg liggéey nga nga gis ne ko sëñ Moustapha di leerale ci ci ci ci téere bi dalay wanaat beneen aspect boo boo bu scientifique boo xam ne war nañ koo gën a jàngataat ci langue olof ndax day dalay jox maanaay ci façon boo xam ni ki xamul langue bi ki nga xam ni déggul olof defe woon na ni olof ndeke amul lii xoola xoola maanaam am solo taklif olof ni la togg jëf lan moo tax waxul togg liggéey ndax ndekete olof xam na ni liggéey bokkut ak jëf kon loolu day précision bu am solo boo xam ni dama ko ci bëggoon a indi beneen bi mooy xidma en comme comme théorie boo xam ne bu taxaw la am ci ay kenn yoo xam ne ci lay taxaw nga xam ni kenn ku nekk xalaatkat bu ne képp ko ko xam-xam ñor fekkiru ñor la mën nga koo jàngat mu sëriñ bi da koo tënk ci ci ci ci benn musallas boo xam ne ñett ko ñett la ko def bi ci kaw mu def fa al rabbu ci fii mu def fi al insaan bi ci des mu def fi al kawnu nga xam ne ñett ñooñu ñooy li nga xam ne ñoo seq musallas bi nga xool relation bi nga xam ne mooy nekk diggante al rabbu ak al insaan li jógee ci insaan di dem ci rab mooy ubudiya ab jaamam la war a doon waaye moom lan la war a defal digganteem ak yàlla mooy alxaakimiya kon moom insaan bi day mel ni moom mooy gouverneur bi nga xam ne moom la yàlla teg ci kaw suuf gouverneur nag day am ay compétence am ay limite compétence yooyu saa boo xamee ni matal na ko ni mu ko war a matale kon jëmmal na alxilaafa gi nga xam ne moom lañ doon wax diggante bi nga xam ne moo nekk al rabbu ak al kawnu rabbu ak alkawnu qayumiya la nga xam ni moom moo koy saytu ci ni mu waree waaye nag diggante doomu aadama bi insaan bi ak kawnu bi mooy at taamir maanaam doomu aadama bi moom lan la mën a apporter kawnu bi mooy daf ko war a dundal moom la aaya boobu la sëñ Cheikh doon wax léegi ni yàlla moo leen indi ci kaw suuf ba pare dundal loo leen ko kon yàlla wane kàttanam ci nazariya boobu nan lay nan la koy wane bu fekkoon yàlla dafa bind doomu aadama ba pare wëlbatiku bi taba wax ko tabaxal ko kër wëlbatiku defaral ko oto day mel ni lim li li li day mel ni li liñ so li li day am loo xam ne dina des digganteem ak doomu aadama bi waaye daf koy jox misaal muy muy muy jàngate ca loolu di di di segg am xelam di ci liggéey mbooleem loo gis ci kaw suuf doomu aadama di ko jariñoo te xelam segg ko da koy segg da koy jëlee ci li nga xam ne moom la yàlla bind. am na benn bindkat ku ñuy wax Wahyuddin Khan la tudd yaakaar naa. Inde Inde la mu bind benn téere bu ñu wax al islaamu yataxadda.
Pakistan Pakistan ah ah, pakistanais la mu bind benn téere bu ñoo al islaamu yataxadda ma wa maxaawir yooyu la ci tanaawul maanaam lu ne rek loo gis fii doomu aadama bind ko defar ko da mu wa- dalay wan fi mu jóge ba ci photographe dalay wan nan la ko copier ci bëtu doomu aadama lépp rek mu lay wan euh, loolu loolu nag li muy li muy wane mooy euh, manzuma bi idée idéologie bi kon day taxaw ci ñetti ro- euh, rukkunu yooyu bi ci- li ci ëpp solo nag mooy rab mooy ne ci kaw insaan nekk fii alkawnu nekk fii kon ngir xilaafa googu nga xam ni moom la yàlla dénk doomu aadama man koo matale faw muy muy taamir kawnu bi faw mu mu jëmmal ci boppam ubudiya xayumiya nag nga xam ni moo leen di kole ñoom ñaar ñëpp kenn kee ko yeeyoo mooy suñ borom subhanahu wa taala loolu kon ci ci ci théorie bi tënk la ci doon beneen bi mooy minhajatu alxidma fii nii damay dam dam xam naa du neex wax ci kii ndax dama ne inna dirasata ayati nadariyatin min annazariyati taxtaaju ila ictimaadi manhajin min xilaliha tartasimu ibtiaada tilka nazari wa maalimaha wali dirasati nazari alxidma ictamada alkokki minhajan gariban bi zatihi is laysa minhajan maarufan aw maalufan bi bayn almanahiji almashhura lada albaaxisina walakademiyin walkokki bi tabiatihi ka faylasufin suufi yamujju taqlid alama والإمعية الأكمة فتبني بكل حرية وأريحية وفقا لطبيعة الدراسة أو القراءة التي يريد إجراءها منهج الاعتماد اللامتبادل منهج الاعتماد اللامتبادل mooy lan mooy dafa am koo xam ne moo soxla kenn la soxla woo kooku mu soxla manqué wut dara lépp lu kii soxla ci moom la koy am kooku nag mooy nekk ci kaw di di di wàcc ay ceeñeeram di wàcc ay yëfam ci kaw nit ki ngir li mu bëgg mu mën koo taxawee ci kaw kawnu bi mu mën koo taxawee loolu lu ma ñoroon la ci ci ci ci ci kii bi ndax dafa bees lool ci manaaxij yi nga xam ne ci la ñuy dirasa ma wax ni nag loolu moo may baaxi moo may alkokki mu mën a baxsa bi ubbeeku ci li mu doon ta- tanzir mu ubbeeku ci kanamam ubbeeku goo xam ne li mu ci bëgg a def lépp def na ko ci te ñi ko ku ko jàngate ak xel te sukkandiku ci pensée moom di nga ko xam loolu nag lan lay wane mooy ubbil buntab doom wan doomu aadama ni ko tënkuwut doomu aadama dara waru koo tënk bu ko yàlla mayee li gën a am solo mooy xel xel moomu da ko war di exploiter di ko jëfandikoo ci lépp loo xam ne moom lay def moo koy mën a may xilaafa gi gi nga xam ne moom la ko yàlla dénk mën koo matal ni mu waree asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëñ Mag sëriñ xam naa sëriñ Cheikh Sène rek du ko defee waaw.
moom mu jaar fi sëñ Maguette jaar rek du ko defee trois minutes rek
gàttal googu sax moo tax ñu far denc fa bu ko defee ndax ñu mën tënk nii rek ndax liñ bindoon dafa xaw a yaatu léegi kon ci tënk am na aspect yoo xam ne ci nazariyatul xidma yu ci am solo la benn bi mooy euh, al adab al maddi yi xidma dëggi dëggi xidma bu amee il faut mu ànd ak teggin ndax nit ki mën na xam yàlla ci xam-xam waaye mënul àgg ci yàlla te àndut ak teggin kon xidma gi faaw mu ànd ak teggin yu mat sëkk sëkk sëkk sëkk loolu xëy na jaroon na développé waaye tënk boobu mën nees na cee kii beneen bi ci des mooy al himma dëggi dëggi xidma mënul am te himma ju kawe amut ndax am na koo xam ni fa mu nekk wala fa mu yëngu wala fa mu nekk di fa xidma mënoon na am fu ko gën a xumb gën ko bakkane gën ko nàngam waaye nag bëgg a taxawal dara ak bëgg a def dara ak bëgg a xidma moo tax ñi- yenn nit ñi di def yenn sacrifice yi kon himma dafa mel ni sax moom moo sos tarixa muridiya parce que conseil bi nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxoon ki nga xam ni moo taxawal muridisme muy cheikh naa cheikh ahmad bamba xaadimu rasul daf ko waxoon ni ko rabbi asxaabaka bil himma kon himma mënta ñàkk ci ci ci xidma parce que loolu mooy base bi nga xam ni moo tax téye sax yoon wi waaw rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars faxat kon himma mënut a ñàkk ci dëgg-dëggi xid kii himma mënu ci ñàkk ci dëgg-dëggi xidma yeneen ñaari point yi nga xam ne fa laay tënkee wàccee sama kàddu bu soobee yàlla benn bi mooy euh, taqdimul awlawiyaat maanaam doomu aadama yi nit ki buy xidma nay xool li nga xam ni moo gën a yell ndax léeg-léeg nga gis koo xam ni la muy sonn ak la muy kurti kurti ca mbir te pourtant lu ko ëpp njëriñ fuufa ngi nii waaye moom ma nga dem rek di rey boppam ca lay tudde ko xidma ñi dégg sëñ Moustapha mii nag ñoom fin ne seenu xidma mënuñu koo yemale ci am li ngay gis ci yenn dëkk yu mag yi safar goo xam ni 1 million 500 la te ci seen côté mi ngi taa ci seen côté am na maire boo xam ni ay bagages am a ngi ci biti dañ ko dafa taw ba taw bi dugg ci këram ki dégg sëñ Moustapha pour man munta jël 1 million 500 di ko def ci safar googu di seetaan ñooñu safaram googu te parce que kooku day xam awlawiyaat taqdimul awlawiyaat lan moo gën a yey ci ci xidma gi fi mu toll nii ba xam togg nag wi lekk fur wi moo gën a yey wala dem jël soxna see nga xamante ni ndox mi dafa wal ba dugg këram ñu defaraatal ko miiréem bi yëkkatilaat ko buntu këram bi defaraatal ko nangam bi xaddalaat ko fii est-ce que loolu moo gën a yell loolu moo tax moo waxoon ca départ ba ni xidma mënta ñàkk xam il faut nga xam-xàmmee pour nga xam lii fii la point bi dëgg-dëgg nekkee loolu nag tawféex la loolu la sëñ Tuubaa di wax naa raafaxtu fii xidmati tawfiixa xaaliqinaa loolu mooy tawfiix nga xam fi point bi nekk nga di fa dóor bu ko defee rek nga daal di mën a am tawfiix ju mag a mag a mag a mag a mag beneen bi ci des mooy xid xidma xidma buñ ko xamoon dafa am loo xam dañ ko doon gént philosophie ñu daan ko jàng bi ñu nekk saal sanawi yooyu mooy almadinatul fadila waaw dëkk boobu nga xam ni daanaka ci xéewal ak ci tegu ci yoon ak jàmm ak kenn ku ne yéene sa moroom kenn ku ne di jéem a jariñ sa moroom dëkk ba neex lool dëkk yooyu dañ ko doon gént di ko gént waaye ci nazariya bi nga xam ni sëñ Moustapha Diop kooki moom la ñu leeralal suñu bët ah loolu kon mooy yow daanaka da ngay fàtte sa bopp ba nga xam ni li la ñor dëgg-dëgg mooy def ba jariñ nit ñi kon agressé day jeex maanaam nazariyatul xidma kon bu duggee agressé day jeex sàcc day jeex parce que yow miy jël sa alalu bopp di ko jox pour nit ñi jariñoo yooyu yëpp day set ci wew wecc bu ko defee nag léegi yow ki nga xamante ni amat xalaatatul ci xelam dund te jariñul doomu aadama moom jariñ doomu aadama rek lay wër kon kooku moom ba mu génnee sax ci ay affaire da lor doomu aadama police moo dootul amati liggéey su fekkoonte maanaam nazareetul xidma bi jàll na ci doomu aadama yi bu boobaa nag ñu nekk almadinatul fadila te dara ñu mënuñu koo may pour man loolu li nga xam ni mooy xidma mooy gis jariñu daam jaam bi chaque jour ngay gis nan laay def ba jariñ nit ñi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ am na solo lool xam naa li nga ci dañ li nga li nga ci indi rek mooy li nga wax maanaam ëdëb mënut a ñàkk mooy ay teggin ak ak himma mooy yitte yitte ju kawe ak tamit li nga xam ne mooy xam maanaam xam fi mbir mi fi mbir mi fi mu gën a yayee nga ko nga ko fay nga ko fay defee kon loolu maanaam bind la daal bu xam ni tamit wax nga ni finalité wu xidma mooy cité idéal mooy dëkk bi nga xam ni philosophe yu njëkk ya Aristote ba ci ki ba ci ñi mujj ci arab yi ñoo ngi doon ko gént di ko bind di ko théoriser waaye xamuñu nan lañ koy amee ndekete ci xidma lañ koy amee loolu dégg nañ ko ci say ci say wax kon xam naa sëriñ Assane Ndour moom la ñuy jox kàddu gi rek mu jaar fi mbokk yi jaar rek ci 3 minutes
damay damay jël benn bayit rek wax ci dara muy bi sëriñ bi di wax naa waahidullah ala axsil kitaab bi xidma bi xidmatil Moustapha baabi sawaab te xam nga ci alxuraan yàlla mi ngi wax naa inna lasina yubaayi'uunaka innamaa yubaayi'uuna allah yadullaahi fawqa fawqa aydihim te feet ci sëñ biit waxoon na ko ubaayi'ul ubaayi'ul yawma rasulul Moustapha bi xidmatin wa asalullah alwafa te aayab alxuraan bee tamit wax na mu ne ñi nga xam ne mata wafa mu ne ñooña dañu am ak fay gu rëy di gën a ca waaye wax na itam fa man nakasa ku jaayante ba pare nga nga nga fecc la nga jaayante woon moo tax moo tax man bu may liir téere téere bi di al umda dama ci ame ci yaqin Cheikh Ahmadou Bamba al wirasatul kaamil li li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo moo dëgg-dëgg moo ko incarné ndax da ngay gis sufiyanke yi ko jiitu woon ni ñu ni ñu ni ñu jàmbaaree woon waaye ñaare booy topp seen i seen i seen i seen ak dund da ngay dem ne wàllu màdda dañ ko xaw a xaw a xaw a sàggane topp comme li li daloon malaayika rek ndax nu sabbixu lak wan nu mooy tasbih ak wirdi yooyu rek ba ba ba ba ba fàttee taxawal rumuus yi te xam nga ne jimaay njaareem ji bu ñu koy taxawal loolu loolu ram sa xadaara la loolu dafa am solo te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne ci jamono moo nekk moo nekk général général de guerre bi moo nekk tabib bi moo nekk imam bi mooy muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp moo ko incarné woon kon teewul Ababacar Sadiq niru na ko Seydina Omar niru na ko Seydina Ali niru na ko waaye ñoom niroowuñu ci seen biir ku nekk daa am facette wet goo xam ne da nga caaroo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël ko loolu loolu nag li looloo tax ma gëm ne Cheikh Ahmad Bamba moo yore al wirasatul kaamil ndax moom doxam gi nitu suufiyanke ki mu ki mu doon waaye tam loolu tam teewul mu nekk koo xam ne dafa am visionnaire dafa am gis-gis dem dëkk bu àll bu lëndëm mu gor ko ba pare rëdd palan bi wax nit ñi ni ñu bëgg ñu dëkk foofu ni ñu fay nekkee yëpp mu mu tëral ko ba xam naa xëy na jamono dina ñëw Touba ci boppam ñu defal ko ab ab nazaria comme wala ñu xool nu ñu koy defee xidma ak Matlabul Fawzayni ndax projet boobu Cheikh Ahmad Bamba théorie boobu daaw daaw daa war daa war a jëmmu wax na ci ay bayt yoo xam ne mooy wam nu ahlaha bi maa in jaari wa maskani salim minal fu jaari wam nu ala ahliha bi maa il jaari lu tax maa ul jaari ak fu jaari jële wa maskani salim minal fu jaari wam nu ala ahliha bi maa in jaari maanaam daqal kàccoor yi bu dee fu jaari loolu lay tekki ba pare nga may dëkk ba maawun jaari ndox muy daw te kon est-ce que manqué ndox gi est-ce que du fu jaari ñoo génnagul Touba ba ba ndox mi mënagul a am wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
xam naa da ngaa wax lu am solo mooy da nga ne yónnente bi saa salaam sëriñ bi da koo donn ci donn bu mat sëkk. moo tax nga gis ñi saxaaba yi nga xam ni ku ne keem la yell ci sa ci ci ci sa jëmm rek moom nga donn ci yónnente bi saa salaam. ku mel ni Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali dafa mel ni tamit sëriñ bi ñi ko toppoon tamit ku ne daa am loo donn ci moom. téere bi da nga gis sëñ Moustapha indi sëñ Mbacke Bousso ni suufi la waaye mujj doon borom xam-xam ci science exacte yi nga gis Cheikh Anta Diop nga xam ne ñu bari daanaka du ñuy lim muriti sax du seen xel du dem ci moom sëñ Moustapha indi ñu facette bu xam ne xamuñu ko woon muy nit ku xam ni scientifique la waaye science boobu daa dem yóbbu ko ba ci mu mujj doon sufiyanke bu mag xam naa foofu la ñuy interpeller sëriñ Abdul Khadim mu ñëw fa du ko defee ci 3 minutes rek.
xidma boo xoolee sëñ bi tatbiq bi mu ci def daa doy sëkk rek mooy ñu bëggoon a xam sëñ Tuubaa mooy kan maanaam yow yaa ngi jënd parfum parfum bi neex na naka laa koy xamee mooy ma essayé kon jëmm yi ñoom ñooy wane tolluwaayub sëñ Tuubaa ku mel ne sëñ Mbàkke Buso da ngay xool li sëñ maam alxaaji Malick si seede ci moom mooy moom ci sëñ Mbàkke Buso la xamee tolluwaayub sëñ Tuubaa mooy kon ah kon sëñ Tuubaa mii kon Mbàkke Buso ku muy topp di la sukka di la raamal waaw moom doo n'importe qui doo ku ndaw kon loolu doo nekk sëñ Mbàkke Buso rawatina xam-xam bi nga xam ne yor na ko xam-xam bu bari bi ci ci funoon yëpp nag mu bind ci riyaadiyaat fëlëg usulu fiq yëpp mu bind ci nga xam ne moom mooy ki nga xam ne fi mu ne weesoon na ko wane adduna bi yëpp gis ko ci tolluwaay bi mu am ci yoon wi léegi man damay wax ne yoon wi kon ci moom la Sénégal mën a sukkandikoo ngir mën a avancer daa doy mooy Cheikh Anta Diop mooy wan na ne kon ndekete yoo njàngum tubaab moom du dara xoolal diggante bi mu jàngee ma xala ibtidaa yi saane wi gis nga diggante boobu ni mu gàttee waaye teewul ba amee maîtrise daa commencé moom di di tatbiq moom di génnee ay yëf di di commencé di bind ay abajadiya ay rumus di génne xamal ne africains yi kon déedéet bàyyi leen ñee ñu dem te ñun ñu fas yéene taxaw suñu yëfu bopp. ci tolluwaay yu méttee métti nga xam ne guerre mondiale bi première bi ak deuxième bi yëpp moom mi ngi ci nujju goo xam ne maanaam mustawa ilmi bu fort ngir wane ne Sénégal moom fenn képp la mën avancer muy fii mooy moom jigéen maanaam xàll na yoon wi maanaam dañuy wax ne Cheikh Diop mi gaa yi xam ak mii nekk ci téeréb Cheikh Moustapha bi bokkut ñu Cheikh Anta Diop historien lañ xam Cheikh Anta Diop mi nga xam ne moom daa xam ci wàllu technique jeex na waaye moom mi nga xam ne sëñ bi jox na ko ab junj mooy yow sa wàll gi ci yëf yi mooy yan bi mu ko yan mooy kon yow am nga loo war a taxawal muy kon ñii di coow ci réew mi ku ci nekk yaa ngay tudd ay leader politique yoo xam ne ña nga ca àll ba te yow yaa ngi am or bu jege lool jamaa bu foor boo xam ne mi ngi sa kanam nga xam ne xeetu xam-xam yépp dala ko xëccal tegal la ko léegi yow jëfandikool waaye Sénégal ci ak taayal ab sénégalais moom taarix lay dundal waaye day rey turaas ab sénégalais day rey turaas ndono moom xamu ko xamut sàmm ndono waaye lam xam mooy diw moo defoon nangam di ko yéemu diw moo defoon nangam diw moo defoon nangam te taarix day dee seen yow loolu xam ne de seen yow moom daa xam ne moom dafay jugee waaye waxtu bu bindee ba fi mbindam mii day des léegi moom dundal na turaas waaye taarix moom xam na ne moom dafay jugee Cheikh Ibrahima Fall noonu la def suñu baag bu si noonu la def waaye ñoom xam na ne lu àdduna bi jag jag jag yow fexeel yow ba bàyyi fi loo xam ne sa njaboot bu ñëwee daañu ci mën a sukkandiku seen réew avancé kon Sëñ Tuubaa moom mooy seul personne boo xam ne mënees naa wax ne bu ñu sukkandikoo ci am liggéeyam ak njàngale mi mu jàngale ci xidma maanaam jëriñ sa réew ci moom la yem ci jàll ci dem avancé ci mën a avancé ci côté mbay xam-xam lépp rek ci jëriñ nga xam ne léegi yow yow mi nekk président léegi dootoo xantewoo naay xool nu may def bay jëriñoo mbindee mbindee bi di téye seen i suuf di lekk seen alal di tëj seen compte banque di def yooyu léegi man dama leen di jëriñ di leen taxawu ci biir ak ci biti kon ñii ñooy wane ne kon liggéeyal sëñ Touba leer na wóor na di sëñ bi di wax ne barakatoon bi nee li xayri niama tun sin muy dina ana al xidma dëgg-dëgg xidma bala nga kaa xam mooy nga demoon ba waa retraité li gars yi retraité nga xam ne léegi da ngay yaakaar ay social yi moom mu ne déedéet yow fexeel yow waxtu woo ci àggee rek yàlla moom mooy taxaw sa mbir yombalal ko moom la Cheikh Mohamad Lamine Diop Ibrahima Diop almasani di wax ni mubaarakul kulli kullal kal yadfau an mutaji bila xawfin wala raxabin kon suñ tubaa ngoo xidma ngoo maa ngi tudd bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf sëriñ Abdul Khadim fi nga jeexalee am na solo lool da ngaa wax lu am solo ma bëgg cee dellu si muy Sénégal souvent duñu du ñu jariñu ci lu leen jige rawatina lu xam ne ñoom ñoo ko moom benn professeur Amadou Ali Dieng professeur bu am solo la université Anta Diop la nekkoon yàlla na ko suñu borom yërëm dafa wax ni sénégalais même du ñu gëm ab sëriñ buy ñaan sax mooy sëriñ bu jóge fu sori lu xam ne da nga naan sama sëriñ bi dafa aay wolof sax déggu ko ab bambara la wala nangam maanaam xam ni nee na loolu dafa nekk dafa man dafa dem ba bokk ci ñun maanaam ku ñu sori la ñu gën a gëm ko ku ñu jege moo tax souvent du ñu jariñu ci sunuy ci sunuy ci sunuy nit rawatina ki nga xam ni mooy sëriñ bi xam ni njariñ la woon comme ni ko Cheikh Sidi Baba waxee maanaam njariñ la boo xam ne dafa ñeeloon àdduna bépp kon ñoo ngi sant bu baax sëñ Maguette Kanji ak sëñ Cheikh Sène sëñ Assane Ndour ak sëñ Abdoul Khadim maanaam waxtaan wi kawe na njort lool waaw moom am na solo lool waaw kon xam naa dañuy jox kàddu yi suñuy commentateur rek ñi nga xam ne ñoo war a commenté waxtaan bi ñu jiital ci sëñ Sam Ñing bu ko defee بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته وأمته أجمعين mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax te di leen baalu xaq te di leen ko baal te ñaan borom bi subxanahu wa ta'ala mu bu leen jégal. bu ko defee xanaa fi ñuy tàmbalee rek mooy rafetlu waxtaan wi bu baax a baax ndax waxtaan wi moom ku ko dégg di nga xam ne am na niveau lool yéen ñi ñu fi indi itam. dañ doon wax naan siñ bi amagul ay dongo waaye dama ragal ne bu yàggee léegi siñ bi am ay dongo ndax wax digg na si yàlla déggin yi ma fi dégg ak fit wi jàllale ko am na solo lool te Cheikh Moustapha it loolu la bëgg xam naa man fi may ñëwee nag mooy jéem a lekkale lii ngeen doon wax ak projet bii nga xam ne moom la Cheikh Moustapha woote Cheikh Moustapha nag xidma mii la bëgg a jëmal ci yéen wala boog xidma mii la bëgg ñun ñu mel noonu waaw ñu pratiquer ko loolu na naka lay amee naka lay amee xam nañ ne borom bi subhanahu wa taala du wax ak ñëpp day xox day sélectionné ay personnes wax ak ñoom looloo waral mu sélectionné rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ak moom yoneen bii war a wax ak sahaaba yi looloo taxoon si am safaane rapport bi nga xam ne moo war a am diggante moo amoon diggante saxaaba ya ak yonent bi saa sallam mooy al isaan mooy ñu gëm ko lu mu wax ñu gëm ni ci yàlla la jóge gëm gañ ko gëmoon moo taxoon mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ñu nangu koo jox loolu it mooy li nga xam ne Sëriñ Tuubaa moom la doon da wax ne xarnu bi gën a niru xarnu saxaaba mooy xarnu Cheikh Xadim ak taalibe mi nga xam ne da ngay mën a gis Aboubacar Sadiq ci gaayam yi gis Ousmane ci gaayam yi gis Omar ci gaayam yi gis Aline ci gaayam yi waaye Sëriñ Tuubaa it ba mu jàllee fi ma bëggoon a jëkk a jaare sax mooy tasawuf day am sawra li ñuy tuddee sawra mooy révolution xam nañ ne comme ni ko Cheikh Moustapha waxee alquran xalifa la tudd ñu dem ba mu yàgg baat bi am problème ndax léegi day juñ nguur di juñ nooflaay léegi Sëriñ Tuubaa indi xaadim lan moo indi loolu mooy saxaaba ya lan moo tax tasawuf bi muy door a door yemoon ci al uquf ala al ibada li ko waral mooy biñ duggee dég dégmalee àdduna dañoo dem ba nit ñi dégmal giñ dégmal àdduna tax nangootuñoo jaamu yàlla ba mu jural leen ñuy xeccoo ci seen biir moo tax ñu mel ni Abu Sar al-Xifaari mel ni Saad ibn Abi Waqqaas dal di jóg ñoom dugg alba dal ni ñoom duñ bokk ci fitna si dañuy jaamu yàlla loolu mooy cosaanul tasawuf léegi nag tasawuf départ na ci xarnu saxaaba la doo doore yoneen bi nekkoon comme ni ko sëñ Assane waxee nekk général bi ngeen baal ma li ma war a wax nag daa bëri nekk général bi nekk lépp nekk tabib bi nekk kii ñaan nekk lépp daal alkul bi mu demee nag àdduna si nga xam ne moo gane saxaaba yi tax na tuxyaan dugg seen biir ñii dal di ñoom dal di dugg alba dal di def al ukuf ala al ibada bi loolu amee ñu dem ab diir ku demee ni Cheikh Abdul Qadir Jeylaani dégg nga xutbaam aksarul xutba fi taarix bi mu def dafa wax ne ñu ngi not seydina Muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam kon acca kon l'islam comme ni ma ko waxee woon noonu tasawuf door nekk maanaam étape bu ci nekk day laaj révolution muy sawra léegi ñooñu def nañu sawra muy bàyyi nit ñi ak liñ am dal di dëgmal àll bi ngir bu rawale seen diine ak rawale seen pas-pas ba loolu amee boobu diir jur na lu demee ni yàq ndax léegi nit ñi yittewoowut yittewootuñ dundal den bi waaye dañoo yittewoo seen seen bopp jàgg nga xam ne ay saalix la ñuy doon waaye bañ doxee loolee ab diir dégg nga xutba bi Cheikh Abdul Qadir Jaylaan defoon muy aksar xutba fi taarix dañoo wax ne dafa wax ne luqmatun fi batni jaaya xayrun min binaay alfi jaamia kon loolu xidma la mu ngi soñ nit ñi ci ne kat kon dundal benn biir moo gën tabax junnee jàkka léegi loola dem ba ci Sëriñ Tuubaa bi mu agsee xam ne kon sufiyanke yu jëkk ya dañoo jëloon ruux ruuxa seen ruuxaan yi rek ngir dundal ko bàyyi kawnu bi saqatuñoo ak moom dara mu ne loolu kon njuumte la léegi nañ la ñuy fexee ba boole diggante ruux ak madda ba mën ndax nit ki ñaar yooyu la composé ngir mën a dundal kaw suuf loolu bu amee léegi loolu lan moo koy alimenté mooy nit ki day xam dara Sëñ Tuubaa jox mag ñi ay bagage ñu xam dara loola jaral leen ndax nit ki mënta xidma te imaan amul maanaam Sëñ Mustafaa lii mu woote duñ ci dem dëgg-dëggi dem maanaam mu jaral na suñ bàkkan yii tànka demuñ ba xam ne lii dëgg la muy imaan kon dañ koy gëm bu gëm ko amee moom danañ jaral bakkan yi danañ jaral alal yi loolu nag ni muy amee mooy Sëñ Tuubaa loolu la indi mooy fexe ba alimenter wu yi jox leen dara ba loola taxoon mu wax ne képp koo xam ne dangaa ànd ak man ngir alaaxira tourneel ku ànd ak man ngir àdduna tourneel ku ànd ak man ngir yàlla nag kaañ dem nga xam ne nit ki yàllaa koy ñor yàllaa koy jaral loolu mooy volontaire waaye loolu it biñ doxee bu diir dafa mel ni dafa am raq-raq bu ci am te mooy ruuxaaniye bi doxatul na mu war a doxe madda bi di dox mooy lii ñuy dund rek di tabax ay sato di tabax ay nangam di tabax ay nangam sëñ Moustapha nag loolu la dikk ngir jëlewaat ko fi ngir indiwaat ñaar yi muy fexe ba ruuxaaniye bi di dox waaye fexe ba madda bi di dox ndax tubaab yi moom dañoo yemoon ci madda di ko doxal mu yaxlamuuna zahiran min alxayaati dunia wa hum an al axirati hum xaafiluun léegi nag sëñ Moustapha li mu bëgg mooy ñu fexe ba boole diggante madda ak ruux bu ko defee ñu mën a am résultat loolu nag léegi fii damay laaj mbooloo mi ñan ñoo am volontaire doon ay maam Thierno ñan ñooy volontaire doon Cheikh Ibra ñan ñooy volontaire doon Cheikh Mandoumbe ñan ñooy volontaire doon Cheikh Issa Diène loolu la Cheikh Moussa bëgg ci ñun waaw mooy ñoo xam ne dañuy am volontaire mbir mi jaral leen ñu mën ko dox kon man ba dama jàpp ne balaa xidma am imaan mooy jiitu comme yàlla du wax ak ñëpp kenn lay waxat yàllaa ngi wax ak Cheikh Moustapha ñu gëm loolu Cheikh Moustapha li ñu wax ak moom muy mu mu transféré ñu ko léegi nag gëm nañ ne li muy wax dëgg la kon lan moo des topp ko moo des topp googu nag ñëpp mënuñoo booloo ànd topp topp siñ bi dëggal ndax ñëpp mënuñoo booloo xamanoo dara moo tax di wax naan ku ku fi ñëw def ñeen fukk da nga xam dara loolu man jàpp naa ne erreur la ndax ñëpp moom mënuñoo booloo xam yàlla daa saq ñu war a xam ak ñoo xamante nii ñi xam ñoo leen di guider yóbbaale leen yàlla saq ñu war ñoo xam ne ñoom lay waxat ña muy waxat mën a transférer message bi ci ñoom ñu mën koo nangu gëm ko mën a déggal ànd ak ñoom. kon loolu kilifa mënta ñàkk loolu tax Sëñ Tuubaa bi mu demee ba xam ne yonent bi mooy buntub suñu boroom te woykat ba waxoon ne ko anta baabullaahi wa man ataa bi xayrika laa yadxulu moom daa ñëw dal di ko ne simaamiya lyawma jaaltuhu abad fi yaddi ahmada li taati samad kon ñun itam pour procès bu Cheikh Moustapha bii dox dañuy jël dañoo jël suñu bopp jox ko mu doon suñ bunt ci Sëñ Tuubaa loolu nag ku ko gëm te dégal ko kooku man jàpp naa ne amatul benn benn benn discours bu ñu wax ak moom yow yaa yow yaa yow yaa jël sa yitte dox ba ñëw ci moom ne ko jaayante nag yaw ngir yàlla dangaa jaayanteeg moom ngir yàlla moo tax Cheikh Moustapha noonu kenn du fay ku dul yàlla yàllaay fay loolu buñ ko gémee léegi day yomb nag ñu mën koo liggéeyal loolu tax mu mu doon firi laaya jiine ilayhi yasadul kalimu tayyib wala amalu saali yarfa'uhu mu ne jëf ji moom yàllaa koy yëgal waaye bu dee subhaanallaahi subhaanallaahi ji nga xam ne moom la saa classe gi def loolu moom mooy yëgal boppam léegi nag kon dañuy daal di dañuy daal di boole ñaar mooy di xidma di zikar ndax zikar bi mooy tax a gëm a zikru billah mooy dolli yaqiin mooy tax nga gëm waaw nit ki boo déggee mu nekk naafeq rek daa xamul dara waaye ku mu wóor ne alaxira dëgg la danga nangoo xidma xidma kenn rek a koy def mooy ki ku mu wóor ne alaxira dëgg la waaye ki wóoru ki ko ki nga xam ne day sikki sàkk ci alaxira dëgg la kooku du xidma mën naa nekk naafeq mën naa doon leneen waaye ki mu wóor ne moom dana dee loolu moom ñëpp la wóor sax waaye yàlla dana ko taxawal jëfam yooyu ca la koy attee kooku moom mu xidma day yom ci moom kon xam naa li ma war na wax bari na waaye gars yi dañ ma fee jiitu bu mën maa wax dara maa ngi jéglu bu baax a baax waaw waaw foofu it li ma fàtte mooy yéen jànkat yi itam yéen a war a jiitu ci woote bi Sëñ Tuubaa woote bi Seex Mustafaa bi ndax Sëñ Tuubaa bañ ko laajee ca ndar ne ko woote bi ñu ci jiitu dina fal mutaawi mutaallimuuna awalan kon yéen jànkat yi it faydul ganiyul muxni soxna la leen ndax du ngeen wax léegi bu ngeen waxut ñi xamul day wax ñi xamul nag bu ñu waxee wax ay waaw waaw kon yéen ñi jàng yéen ay ñi nga xam ne yéen ay première cible yi waaw yéen ay première cible yi bu ko defee ñi nga xam ne ñooy ahlu tarbiya dal di cay topp ndax woote Cheikh Moustapha bi ñi jàng ñoo ko mën a yóbbu boole ci gém ko ak ñi ko gémul sëñ Cheikh Cheikh Ndiaye daf maa bëggoon fay pour ma tëb ko sëñ Baba sëñ kon sëñ Babacar sëñ Babacar Dramé du noppee rek sëñ Cheikh daal di tëj bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وخديمه وسلم تسليما barkeb Cheikh Moustapha ñuy nuyu ñëpp rek di ko tàmbalee ci sunu kilifa Cheikh Mamadou Moustapha alhaadi al xayr ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool ba naal yëpp yegg coleet te nu ànd kook moom dajee seeg ngërëmul suñu borom ñëpp rek daanaka day jotaay bi moom ndar képp na ndax li ñu fi li ñu fi wax xam-xame na lool ba daanaka boo ci bëggoon a yokk dara rek yàq ngay gën a niru kuy def ki defar waaye rek xanaa ñu jéem koo dëppale rek ci lu ñu xamas ko si néew ci naal bi nga xam ne Cheikh Amadou Moustapha naalal na ko boroomam ci ci kaw suuf te mooy rek bi nga xamee ne théorie na xidma conceptualiser ko yemul rek ci ci def noonu ndax ku ne xam ne ne xidma mooy lu Mawlaana Abdul Xadim pratiqué woon mu ñëw jëmmal ko def ko concept waaye yemul ci def ko concept waaye dafa jëlaat concept bi tasaat ko ngir pratiquer waat ko ci beneen anam boo xam ne da koy dëppale ak ni jamono di doxee loolu nag kon bu ñu ko xamee dina am noo xam ne dina ko jéem a jëmmalee liggéey bi te mooy naalal boroomam ay daara mooy ñaar fukki daara ak juróom-ñett te comme ni ko ñëpp waxee rek xidma ak ni ñu ko xamee dafa am loo xam ne mooy doon moteur bi te moo koy alimenté te loolu mooy ruux gi kon jaani bu ruux yi foo mu am foow alxaid am koo xam ne moom mooy nekk guide bi nekk koo xam ne moom mooy alimenté ñi nga xam ne ñooy war a yëngu ci xidma ku ñu wax George Broglie nga xam ne moom moo créé lu ñu wax la mécanique ondulatoire dafa am lu mu doon wax lu am solo mooy ne monde bi lu ñuy wax observateur ak li muy observé ak moyens yi muy utiliser pour observer kenn mënu koo dissocier loo xam ne la lu mën a ànd la lu ñuy mën a bo lu ñuy boole la kenn mënu koo xaaj moo tax Cheikh Moustapha kenn mënu ko xaajale ak théorie xidma waaye kenn mënu ko xaajale ak démarche bi muy bi muy bi mu koy développé moo tax kon booy wax xidma foo nga dëppale ko ak gis-gisam ak doxinam te ku ne xam ne ne ginnaaw bu ñu waxee aljaani bu ruux yi te mooy moteur bi alimenté xidma gi faw Cheikh Moustapha koo xam-xam ne ci xam-xam lay doxe kon li ci jiitu mooy xam-xam moo tax aljaanibul almi ci mën xëjam daal di ñëw moo tax mu naal ñaar fukki daara ak juróom-ñett yoo xam ne démarche yi ñu fay jàngalee ak méthode bañ ba mu ba mu ci ba mu ci ba mu koy doxalee day wuteeg façon bi ñu xamoon ci daara te mooy rek jàng alxuraan bu mokkal jàng téere majaalis yi ak yu mel noonu waaye dañuy dëppale daara ji ak xam-xamu jamono ba nga xam ne dongo bi bu cay génn dina jàng mbooleem xeetu xam-xam yu am njëriñ yépp moo xam xam-xam yu ñuy pratiquer la mo menuiserie yi maçon ak yu mel noonu moo xam yeneen xam-xam yu jamono laaj yépp la nga xam ne dong bu cay génn du nekk rek koo xam ne alxuraan la xam ak lu jëm ci wàllu diine islam nii waaye lépp luy xam-xam bu am njëriñ dina ko génnaale lu nekk mu am ca dara nga xam ne loolu mooy tax mu mën a nekk lu ñuy wax alxaadim bi nga xam ne moom mooy cëslaayu théorie xidma xaadim boobu nag bu ko nekkee day am ay interaction boo yoo xam ne da koy am bi ci njëkk mooy digganteem ak boroomam te loolu xidma gi ak jaanibu ruux yi koy alimenté mooy tax du toxi ci jëf gi muy jëfal boroom jëf gi muy jëf ngir boroomam waaye day am interaction ak nature bi te ku ne xam ne ne Einstein li mu doon wax mooy Dieu ne joue pas au dé mooy monde bi ni ko yàlla suñu boroom bindee nekkul hasard lépp loo xam ne am na fu mu tegu loo gis mu tegu fenn rek am na lu tax suñu boroom teg ko fa kon nga xam ne élément yépp a lié benn élément mënta dem bàyyi morom nga kon nit mënoo wax da ngay xidma ci nit ñi kepp boo bëggee xidma ci nit ñi kepp bàyyi garab yi bu garab yi yàqoo nit ñi duñ dund boo bëggee xidma ci garab yi bàyyi suuf si bu suuf si yàqoo kon deesu mën a bay te buñ bayut nit ñi duñ lekk kon duñ dund kon xidma gi bu ñu waxee ci nature foo nga boole ci bàyyi ma yi foo nga boole ci garab yi waaye foo nga boole ci itam nit ñi kon moom naalam mooy defar nit koo xam ne bu génnee du des ginnaaw ci jaamu yàlla ga waaye itam nag ci liggéeyu àdduna luy dundal suuf ci dans sa globalité ci lépp du ca des ginnaaw loolu itam nag am na cëslaay ci Mawlana Abdul Xadim ndax ñi jiitu ñëpp leeral nañ ko ci ñi nga xam ne jiitu nañ ko dañoo desaloon ginnaaw matière dem rek ci dëddu àdduna bëgg koo bàyyi jubalal borom bi tabaaraka wa taala kese waaye moom dafa ñëw jël ci àdduna yóbbal bu bu yóbbal bu muy yóbbu aljana nu ko waxee ci jawar axasu min duniyaahu zaadi lil jinaan nga xam ne kon àdduna si lu ci dagan mu war a xam ne bu ko jëfandikoo yee dina non seulement dina jëriñ dina dundal suuf si waaye dina ko jëriñ moom ngir mu def ko yóbbal bu bu jëm bés penc nga xam ne kon loolu mooy mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi naal te mooy rek suñu ko tënkee Cheikh Anta Diop li mu doon wax ca colloque boobu mu doon def Berlin te mooy l'apport de l'Afrique sur la civilisation du monde mu doon wax naan noirs yi dañoo nit ñi ñuul yi dañoo fàtte woon waaye dafa mel ni tey maanaam dañ dañoo fàtte woon li weesu waaye dafa mel ni tey retrouver nañ seen mémoire bi seen mémoire te retrouver mémoire bi Mawlana bi bi Cheikh Moustapha def moo tax mu mën a delluwaat ci li sëñ bi pratiqué ñu ko daan def inconsciemment nga xam ne ñun ñëpp dañ daan jëf di def di di di defi jëf te inconsciemment xamoo dëgg-dëgg lii lu mu doon da ngaa gis daanaka mbooloo mi yëpp di ko def rek nga koy def léegi nag mu jël ko théoriser ko ba nga xam ne yow boo koy def xam-xam dina ci jiitu nga xam ne li may def nii mooy lii daa am cëslaay ba lépp looy yëngooti rek bépp yëngu booy defati jaamu yàlla suñu borom lay doon kon daal xam naa ci tënk rek Cheikh Moustapha naalam bi ci faydu akaabi saalihin mooy defar nit defar nit ba nga xam ne jaamu yàllaam du des ginnaaw waaye dundaluk àddunaam itam du des ginnaaw xam naa maa ngi tudd baax a baax kaddu yi di ko jégalu asalaamaaleykum wa rahmatulah.
comme xam naa sëñ Cheikh Ndiaye ñëw rek tëj commentaire yi.
Babacar am solo de ah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sadd lisaani nawir janaani sofi amaani wa zid baqaayi ñu ngi nuyu bu baax tey siyaara sunu kilifa gi Cheikh Moustapha Diop al kokki di rafetlu bu baax nag waxtaan wi fi jaar xam naa am na solo lool jë kii nañ ci ay tomb yu bëree bëri nag waaye noonu moom xam naa taxul nu ma ne wax ji lool moo tax commentaire bi du du gudd du gudd xëy na liñ ci tënkoon dañ ciy jël ña ay ñaari wàll rek. dellu si ci lenn ci li nga xam ne sëñ Babacar Dramé doon na ko wax léegi muy li lëkkale projet faydu bi ak lii ñu doon waxtaane xam naa bi ci njëkk nga xam ne ci lan bëgg a ñëw mooy sëñ Cheikh Sène dafa junj lu am solo mooy def def na lu am solo mooy li ñuy wax tasil ilmi ci li si ibaara bi sëñ bi jëfandikoo maanaam waxin wi sëñ bi jëfandikoo wala baat yi mu jëfandikoo ci biir al umda ne al xidmatu hiya al ibaada tasil bi mu ci def nii dafa am solo lool bi mu ko defee rek man damaa daal di joxaat yeneen déggin ci biir ndax am na ci kenn ci gëstukat yu mag yi ñu bind téere ci doon wax ne maanaam ci misaal al abdul xadim ñaari baat la al abdu ak al xadim al abdu mooy ci la al ibaada jóge al ibaada al moo ju mi ngi jóge ci al ibaada mu ne al ibaada nag yàlla rek la ñu koy defal al xitma mooy loo xam ne mënees na koo defal doomu aadama istishhad nag ci bayit yu bari yoo xam ne mi ngi ci bayit mi ngi ci xaside Sëñ Tuubaa yi nga xam ne ci misaal Sëñ Tuubaa day wax ne man jaamub yàlla laa di xaadimub yonente bi alayhi salaatu wasalaam maanaam di defal xidma yonente bi alayhi salaatu wasalaam bayit yooyu itam moo ëpp lu ñuy romb bayit yoo xam ne day mel ne Sëñ Tuubaa day ci bayit yu boo xool maxnaa mi day mel ne day teqale diggante jaamu yàlla ak liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye nag ci kanam tuut dañ xam ne ñaari teqali leen xam naa ak li sëñ bi wax dana xaw a xorom xëy na loola da bokkut ak li sëñ bi bëgg a wax ci alhamda ci déggim nañ ci am ndax lu mel ne baydu yu mu naan iyaaka abudu wa niyati itibaa bi dikri wal xadiisi xaadimul mutaa yow laay jaamu yow yàlla yow képp képp képp te sama pas-pas sama yéene mooy ma liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci alquran ak xadis ci alquran ak xadis loolu nag xam naa bayt bi ma ko booleel ngir firee ko noonu la xaalim mu taala waaye bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi dahabin mawruusi léegi ginnaaw xidma bi ci noonu la koy defee moo tax léegi kon naan léegi bu lay bu liggéey yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci noonu la koy jaare léegi yooyu ak yeneen bayit yu baree baree baree bëri lu mel ne bi mu naan dëban nabiyan wa rasulan xaadima lahu wa tubtu min dunubi nadima wala sax bayit bi mu wax naan qaala ubaydullahi xaadimu rasul qaala ubaydullahi xaadimu rasul maanaam jaamu yàlla mooy firi al ibadatu al ibadatu googu nag léegi mook al abdu gii léegi ñoo bokk al ibadatu al abdu ci al ibadatu la jógee su ko defee léegi mooy jaamu yàlla alxidmatu gii ñu doon waxtaane boo bëggee wax nit ki koy def mooy nu nuñ koy wooye dangaa dañ naan kii mooy ab xaadim léegi nag boo xoolee fii ubaydullahi maanaa maanaa ci misaal daal jaamu bu yàlla daal jaamu bu yàlla la liggéeykatu yonente bi alayhi salaam la xam nga foofu boo fi xoolee day mel ne kon lënt mi dëgër na waaye fii sëñ bi dafee indi lu am solo bayit woo xam ne ma ngi ko ubbee ca paas bi mu doon wax naan alxidmatu hiya al ibaada muy bayitu sëñ Tuuba wi muy wax ne ibaadati bi xidmati lillaahi bi xidmati lillaahi xoofu bi ibaadati lillaahi bi xidmati lillaahi kon baatu xidma bi ñëw na foofu sunu bo sëñ Tuuba laaf ko ci sunu borom wali rasuulillaahi xam nga bu dee yeneen baat yee lu mel ne yaabudu kulli llaha rabbal alamin inshaahu bi xidmati alhaadi amin nit ki mën naa wax ne bi xidmati maa maa maa xidmati alhaadi amin firee ko ànd ak waaye bu dee bii moom amul lënt ibadati bi xidmati lillahi wa li rasulillahi laa lillahi kon foofu am na bayit sëñ Tuubaa yoo xam ne kon noonu la bindoo kon loolu leer na ba tey sëñ bi day wax ne kulli liman lahu kulliyati ibada liman lahu kulliyati ibada hamdi wa man xaalafani abada kulliyati sama lépp lépp génn ko léppam léppam dara génn ci ak jaam yàlla mu ne te mu ne kulli liman lahu kulliyati ibada kon bu wëlbati ko waatee daal ne léegi man jaamu yàlla liggéeykatu yonent bi alayhi salaam loolu tekkiwul ne xitma ga dafa génn jaamu yàlla gi génn ko waaye comme li sëñ Saam doon wax léegi yàlla dul wax ak ñëpp day wax ak kenn mu wax ak ña mu wax ak mbooloo mi léegi ñëpp suñu borom bi mu bindee jaam ñëpp na ko sëñ bi waxee ca tafsir ba dafa wax ne maanaa ubudu rabbakum jaam ñi réer xamuñ fu ñu jëm mooy leen mu joxoon leen yonente bi alayhi salaam ne yonente bi alayhi salaam balliq jot lil kon léegi mënee suta jaamu yàlla te jaarul ci yonente bi alayhi salaam jaamu yàlla gëm bëgg mënoo koo def ci lu dul topp yonente bi alayhi salaam te jaamu yàlla képp moo indi nit ci kaw suuf amu fi beneen liggéey waa léegi ni waa léegi xidma bu doon bu bu mënta dugg ci baat bu mënta dugg ci biir ibaada lu muy doon lan lay doon xam nga alxuraan dafa nga ne maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun benn liggéey ngeen benn benn ab plan bu mu ko defee ab plan bu mu ko defee léegi loolu mooy kitaab ak sunna alxuraan ak sunna kitaab ak sunna léegi loolu mooy indi li suñ la wax kitaab ak sunna joojee nag boo ko bëggee dégg nag nga daal di jëfandikoo nag wajaahidu nu foo sa bi tafahumi léegi jéem a dégg-dégglu nag maanaam alquran ak sunna su ko defee léegi mu doon sa programme mu dund mu doon sa programme mu dund léegi nag programme mu dund boobee loolu moom la alxidma di firil rek moom la alxidma di firil léegi nag njëriñ li ci nekk mooy suñ tubaa dafa delloosiwaat diine ji maanaam mu sempalaat ci nit ñi ndax maanaam théorie yi dafa bari te saaroo fii li ñu tuddee ko lii li ñu tuddee ko lii ñu tuddee ko lii mu ñëw ne lépp ak jaamu yàlla léegi boo dee baleeti mbalit mi deel jàpp ne léegi yàllaa ko waroon a bale léegi maa koy def mu jeex tuddee ko ak jaamu yàlla mu jeex waaye du caaga ne boo dee boo julliwul de jaamoo yàlla soo dee toggati noonu soo dee taal ay làmp ci mbedd yi noonu looy mën a defee tere lu mu mën a doon rek lu mu mën a doon lépp dugg ci biir cadre jaamu yàlla. yaakaar naa tontu la ci loolu. mooy lim ne ruux gi ci boppam mooy yilif matière yu ruux mooy yilif matière ruux googu day dund ci yàlla ba am relation bu ko bu dox diggam ak yàlla relation cofeel relation cofeel boo xam ne mooy dox diggam ak yàlla ba nga xam ne léegi day sawar ci day day sawar ci def xidma day day sawar ci def xidma su ko defee nag boobaa nee na léegi ruux gi mooy yilif waaye nee na matière du yilif maanaa loolu mooy maanaa yàlla ji faaw da ci am su ci yàlla ji nekkut nga xam ne nit ki fasu ci ak jaamu yàlla ak wuutoo ko yàlla ci kaw suuf si su baa da mooy la ma waxoon nasaara wasaniyan mahdan boobaa léegi su dee wutoo ko ak jaamu xërëm ndax delluwut ci yàlla xidma bu delluwut ci yàlla du du du du du tudd xidma du tudd xidma dëgg dëgg dëgg kon balaa kon léegi kon loolu boobaa léegi ak jaamu yàlla rekk la mën a doon doo ko mën a doon xidma dëgg dëgg loolu nag mooy xidma maanaam abaad yëpp boo ko boolee mutakaamila waaye bokkut ak ci misaal yéefar ba nekk fee def benn yëngu boo xam ne dañ naan yëngu bi yëngub xidma la yëngu bi yëngub xidma la waaye amul ruux amul ruux moo tax dee su ko dundee boobaa xidma dëgg dëgg dëgg dëgg xam naa man moom boobaa résultat bi bi nit ki am nag résultat bi nit ki am bu dundee alxidma moom jëmmam moom ci jëmmam jëmm ji mooy li sëñ bi wax ne su boolee aljaanibu ruux yi mooy wetu ruux gi di dund ba noppi wëlbatikuwaat njariñam njariñam juy bàyyi ko ci xelam wala xam-xamam wala dooleem wala alalam lu mën a doon xalaatam yi yëpp bu koy génne muy jéggi jëm ci keneen mu yéene ci ne kii kat yàllaa ko waroon taxawu léegi maa wut yàlla ci taxawu ko su dee set setal mu def mu wax mu fas ca loola su dee jàngale xam-xam mu ne kii yàllaa ko waroon xamal léegi maa wó maa koy wóot ci xamal ko loolu léegi ndam la ndam la ci moom léegi cofeel ci la koy defee foofu la alxam boo duggee ndax léegi njaam ngi neex na ci moom léegi su ko defee yooyu yëpp bu amee ruugaa ngi dund ba noppi léegi nit ki mi ngi def li sëñ kii doon wax sëñ sëñ Cheikh Sène di wax taamirul ard wala waaw xam nga ko doon waxat ci mbokk yi. ma waaw ta ta mooy ndax ñëw na ci kii bi sax ci ci ci ci ci musallas bi mu nekk ci kii bi mooy taamirul ardi buy nit ki di buy dundal suuf seeg yi ko wër yëpp rek mu yéene ci ak jaamu yàlla subaa léegi adduna ji day day am jàmm te it day avancé normal te it maanaam waxtu wu nekk itam li ci yàlla dëxañ ci kaw suuf seeg ak kaw yàlla dëxañ ci kaw na bi yëpp rek subaa léegi lépp dañ koy mën a génnee jariñoo ko te du tee suñu digg ak yàlla ci wàllu ruux ga ak jaamu yàlla yeeg yëpp ña nga ca léegi nekkatuñ ca moom képp yem ca te léegi ñu ngi boole lépp subaa léegi loolu neen li may nit ki mooy fa yasiru l insaanu fi hadihi l xaalati naqiyan basitan yatasaamaa bi aqlihi fi l mulki wa bi ruuxihi fi l malakut xel mi day liggéey lépp lu mën a jëriñ doomu aadama lépp lu mën a jëriñ doomu aadama rek ci kaw suuf ak li fi nekk lépp da koy jagal ngir jàppale lépp moo ko war a def ba noppi diggam ak yàlla day ratax ban nag nag suba léegi kooku mooy doon al insaanul kaamil résultat ba muy am mooy asaadatul quswa mooy maanaam day am tex adduna ak tex àllaaxira am jàmmi adduna am jàmmi àllaaxira kon xam naa ko ko defee mu doon nañ ko junj fii fii léegi léegi xaakimiya boobu nga xam ne mi ngi ko indi ci téere bi juñ da cee juñ lu am solo loo xam ne boo xóotalul ci biir doo ko doo ko gis da ngay gis ni day moom day da lay wan ni la doomu aadama matière bi dafa am ruux am aql am nafs am jism matière bi léegi nag ku ci ne ci ñoom ñaar ay soa atam dafa am fu muy bàyyi ko ruux mi nga xam ne moo ne ci kaw moom mooy talaqi lépp bu ko defee nag moom mu jaar ci nafs jaar ci àql ba ni muy egsee ci ci ci kii yooyu yu yu jafe la yoo xam ne yaakaar naa ñiy gëstu war nañ war nañ koo gën a mën a defaraat waaw ba nga xam ne nit ki dina ko mën a dégg gis nga loolu bu ko bu ko bu ko xaadim bi comprendre rek yëf yi dina jag ndax su boobaa dina réer gu bëree bëri gu am ci ci ci ci lëbëje awlawiyaat yi dina dañ ndax su boobaa nit ki day dañ ak réer nit ki bu xamee boppam moom mooy kan moom li ko composé muy ruux muy nafs muy aql ku ci ne ak li li sharia di di nga xam ne boo boo xoolee dangay gis di sharia la ak xaqiiqa kii li li jëm ci wàllu sariya yi ci aju yëpp nga xam ni day day day doomu aadama da koy jàng moo xam fe aqida la moo xam nàngam la da koy jàng ci xelam moom lay jàpp léegi nag xel loolu nag la war a appliquer ci yaramam waaye loolu lan la koy indil da koy indil xaqiiqa mooy ruuxam mën a set te saa bu setee rek mu mën a egg fi mu jëm bu ko defee mu mën a représenter xilaafa googu comme niñ ko waxee ni mu gën a leer maa ngi jégalu ba
jërëjëf sëriñ